salaamaaleykum mbokki taalibe bi mbokki jullit di ñi ngi leen di nuyu lu bari lool te doola santaat yàlla bu baax suñ boroom mi ñu may ñu teewaat fii ci daaray kaamil di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muhammadul Muntaqa xalifa général lu murit di ko siyaare di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ak mboolem taalibe sëriñ Touba di nuyu it sëriñ Moustapha Jatara mi nga xam ne mooy kilifa barab bi di daare kaamil di nuyu it sëriñ Ousseynou Jatara mi fi nekk di loxoom ak mbooleem ñim àndal liggéey bi yépp ñu ngi leen di nuyu ci turu daayira Diyaw Dóori ci njiitul sëriñ Xaadim Jóob di santaat yàlla bu baax ci teew fi niñ fi teewoon ci wàccaay wu xam ne waxtu màggal ak Tuuba jubsee day am ay entretien yu xam ne lépp lu xeetu ci wàllu courant ñu jagleel nu ko at mu ne ñu ñëw di ko def ba ci ren ji it ñu dellu siwaat fi saytuwaat mboolem làmp bu fi nekk ak courant bi yépp ba lépp tege ci yoon wi mën a tege ñu ci sant yàlla bu baax nag ndax lépp lu la boole ci liggéeyab sëriñ Touba rek ku la ci boole ak lu la ci boole amoo ak fayam hmm. kon kilifa yi fi nekk yépp yombalal nu ko ban man ko def ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaan suñ boroom yàggal seenu taxawaay ci bërëb bi te suñ boroom dëppale leen cee ngërëmu sëriñ bi di jaajëfalit mbooloom dayra Diyaw Dóore yépp ndax tey bis bu xat la ci waxe ndax am na ñu nekk ci barabu sëriñ Abdou Khadir léegi lañ leen woo pour ñu ñëw waaye fa liggéey ba toll yombu ta bàyyi ba tax ñu ne nañ weel kàddu yi rek ndax kenn ku fi teewal ni teebal na fi mbooloo mi di jaajëfalit suñ mbokki électriciens yi nga xam ne ñoo nekk ci association bi nekk ci jumaa fi mu toll nii ñoom it di fa def ay entretien te ànd koog mbooleem daayira Diyaaw Dóor yi ñoom it ñuy rafetlu seenu taxawaay ndax ñoom it waxtu wu ne ci su màggalu Tuubaa jubsee lépp lu xeetu ci entretien ci jumaa ji dañ leen koy jox waaye dañ ci ànd ak daayira bi kon ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbooloo mi yépp mu mel ni it dañ cee amaat beneen tawféex muy wàccaay yi nga xam ne dañ koy def fii ngir mu jëm ci màggal gi di ay waxtaan ay boroomi xam-xam ñu ciy jagleel ay bis ñu jagleel ci daayira Diaw Dóori ajum bii ñu jëm incha allah ñu sàkku mboolo mi yépp ñu teew ci te képp kuy ñëwit nga mën a sol sa siire ngir ñu dundal bis boobu ndax bis la bu xam ne euh, lépp lu xeetu ci xam-xam ak luy dundal mbirum sëriñ bi ak luy taaral màggal gi moom rek lañ fiy waxtaane bis boobu nag ku suñ boroom taw feexe taw feexe la ñu jagleel la ci bis nanga xam ne du sa njàmbaara ah, xëy na du sa walante bu mat waaye suñ boroom rek ak barkeb sëriñ bi moo koy jàppalal nit ba loola mën a antu kon nag noo ngi ci doolee sant yàlla bu baax di sant sëñ Ousseynou ak mbooleem ku xam ne ah, ñi ngi fi teew mu mel nañ niñ ko waxee woon léegi rek yépp saytu nañ ko ba niñ ko daan defee it defewaat nañ ko noonu kon mm, kàddu yi xëy na du gudd foofu rek lañ koy taxawale sant mbooloo mi yépp ñi ñëw ak ñi nga xam ne amoon nañu yéene ñëw te ñëwuñu mu mel ne ubbi woon nañ ci ay jaayante it gis nañ taxawaay bi ci ñépp am ndax lépp ñaari fan la waaye liñ ci soxla woo yépp kenn ku ne ci danga daal seet la cee sa poos nga yëkkati nga jagleel ko sëriñ bi te xam ne poosu murit bu mën a doon moom sëriñ bee ko moom kon nag ñu ngi jaajëfal mbooloo mi yëpp di leen sant di leen gërëm di jaajëfalaat sëriñ Ousseynou bu baax ci taxawaay bi ak mbooleem équipe bi mu fi bokkal nekk yëpp jërë ngeen jëf waaw euh, salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nuyu leen ziar bu baax waa daayira Diyaw Duur di rafetlu seen taxawaay ci barab bi wax dëgg yàlla comme ni ko Baye Serigne waxee kër seen kër la te yàgg ngeen fi ñëw euh, bi ngeen fi tàmbalee ñëw ba léegi gis nañ ak yokkute bu baax a baax ci liggéey bi ndax lépp lu doon jàmbat ci wàllum courant bi ngeen ko yëgee dagg ngeen seen yitte yëpp ñëw ànd ko Serigne Moustapha. ndax yàgg nañ ko jàmbat ay ati at waaye at yi jàll jàmbat loolu mi ngi saafara bu baax a baax ndax lépp loo xamante ni dégg ngeen ko fi wala ngeen yëg ko da ngeen bàyyi seen xëy bàyyi seen lépp dajale seen alal ñëw def ko fi ndax li ngeen def nii yëpp ñi xam ko seen alal bopp ci ngeen ko defee ci ngeen ko dajale ak seen xam-xam ku ne xam na ne jamono xat na lool ci màggal gi bu ñëw ñëpp dañu leen soxla Euh, ci xëy ci liggéey waaye ngeen bàyyi xëy yooyu yëpp ñoo xëyal ko Cheikh Khadim ci këram gi waaye nag li ngeen ko xëyal nag incha allah rab rabbi dañu leen ko fay tey ak ëllëg ndax xëyal ko moom mooy gën ci xëy xëy yëpp moo ci gën kon di leen ñaanal yàlla ci Cheikh ci barke Cheikh Khadim yàlla gën leen ko man loo ndax sag màggal Touba ni ngeen koy ànd ak ñun saa bu màggal jub see rek yi ngeen ñëw def entretien xool rëq-rëq yi nga xamante ne am na ko ci barab bi moo xam ay fii di am problème wala ay piil yu lakk wala lépp loo xam ne jëm ci wàllu Quran ngeen ñëw taxaw ci taxawaay bu mat sëkk bu ànd ak fulla ak fayda a xam-xam ndax di ngeen def lépp dafa leen ko ci rek ci xëy def avant ngeen koy def dangeen koy jàngat jàngal ko bu baax a baax xool liñ ci war def ngeen def ko ci seen àll bopp ak seen mënoon bopp kon ñu ngeen bàyyi Seexul Xadim mu fay leen ba lii ngeen di jublu ci liggéey ak Seexul Xadim moom gën leen a kàttanal gën leen a boole seen xol yi gën a nekk benn ndax xol yi nekk na benn ndax bu nekk toon benn du kenn nit du wax rek ñëpp ànd ak moom waaye kenn day wax ñëpp bàyyi yitte yëpp bàyyi li ngeen def lépp ñu ànd ak moom xëy ci xëy mi ba ba nga suba bi ci suba gi ngoon gi kon leen ñaan yàlla suñu borom gën leen a suturaal gën leen sàmm gën leen a barkeel te xam ne barab yi nga xamante ne yéen nga koy liggéey moo xam ci jumaa ji la moo xam kër Sëriñ Tuubaa yi la moo xam daaray kaamil la moo xam feneen ak feneen la jàpp leen ne barab yooyu mooy barab yi gënal sëñ bi ndax sëñ bi maanaam mën nañ ne këram fii la ndax mu nga ne woon sama trésor mooy alquran mooy hadis mooy xam-xam kon trésor am boobu moom lañ jëmmal ci barab bi kon bu ngeen fi ñëwee nag di ko naatal di ko leeral ci seen tur yi nga xamante ni turu sell la turu barkeel la ki leen ko joxoon di sëriñ Saliou Mbacke kon ku ko sëriñ Saliou joxoon nag di dem Seexul Xadim kon yàlla ndax tailleur la boo xamante ni am na barke am na am na ndam parce que eh, jamono sëriñ Saliou ba léegi ngeen ànd doon liggéey yàlla defut ci yéen benn jiwaloo lépp yéen ngi ànd ak seen xol ak seen xel ak seen eh, nekk benn boole xol yi boole xalaat ak xam-xam bi yal na yàlla sàmm leen te aar leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seydou Xadim ci barke Magal gi ñu dégmal di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah incha allah bu ajuma ak jaamu safar yéen lañ ko jagleel ndax jagleel gi li ci jublu mooy maanaam sargal leen njukkal leen ba àdduna bi xam ko ndax li ngeen defal Sëriñ Tuubaa ci barabam yi dañ ko war a xam ndax képp koo xamante ni yaa ngi dëkk bi wala yaa ngi nekk ab taalibe di yëngatu ci wàllum courant dangaa ñëw dangaa war ñëw participer ci liggéey bi xam ndax sëñ Tuubaa foofu lañ koy liggéeyalee na nag ci maanaam këram yi sell yi kon ku nekk ci lam ko liggéey li alam di doon xam-xam mooy lii kon yàlla na yàlla sutural leen yàlla barkeeleel leen sàmm leen sàmm seen njaboot sàmm seen alal ba li ngeen liggéey li sëñ Tuubaa nga am ko gën koo mën baak kon leen dox di dayee incha allah ajuma 4 safar incha allah ci ndaje bi nga xamante sëñ Moustapha dana ñëw ànd ak euh, ñëpp sant leen gërëm leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf قديمه عجيب به لي جاد مؤمن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه